asalaamaaleykum wa rahmatullah waa codice de la strada waaw dama doon bëgg def benn euh, vidéo bu gàtt rek ci benn benn picc boo xam ne day faral di ñëw lu bari euh, di tàmbale toujours ci baatu bisogna lasciare liberi mooy li nga xam ne da ko war a bàyyi mu libre bu trafic bi intenso maanaam trafic bu fekkee dafa xat euh, am na foo xamante ni boo fa eggee waroo faa taxaw parce que da ngay baare circulation wala daam looy baare mais am na ci yoo xam ni it moom terewuñ ko fa taxaw bu trafic bi xatee trafico intenso euh, mën nañ ko jàppee lii ngeen gis ni image bii nii mooy oto yi niñ tegaloo nii nga xam ni demuñ dikkuñ dafa xat léegi nag bu lii amee am na foo xam ne boo fa eggee yow sa oto waroo faa taxaw da ko war a jéggi complètement mais war taxaw ci digg bi euh, ñu commencé ko ci bu njëkk bi nga xam ne vero la maanaam lépp na bisogna lasciare liberi ci course yi juróom-ñaar la set quatre yi falso la ñetti yi vero euh, quatre yi nga xam ne euh, ñett yi nga xam ne vero bi jiitu mooy bisogna lasciare liberi gli incroci in caso di traffico intenso maanaam incrocio croisement boo ci eggee trafic bi xat da ko war a bàyyi mu libre lu tax mu wax loolu mooy dañ xool image bi lii ab incrocio la mooy li fii ma teg curseur bi muy giraare mooy incrocio mooy célébé yoon croisement léegi yow bu fekkee trafic bi dafa xat yow nga ñëw ba ci digg bi di toppante ak oto ba ci digg bi taxaw fii fii sama curseur bi nekk xam nga ci digg tali bi ngay taxaw oto bi jóge droite du am fu mu jaar oto bi jóge gauche du fu mu jaar li gën mooy yow boo ñëwee ak sa oto ba fii fekk mënoo ko jéggi complètement ndax trafico intense da nga war a taxaw fii ba fii ba mu libre nga nga jéggi complètement dem ci beneen boor bi moo tax mu ne nga bàyyi ko libre bu fekkee trafic bi dafa xat te loolu vero la beneen bi ci topp mooy bisogna lasciare liberi i cavalcavia in caso di traffico intenso mu ne li ñu woowee cavalcavia tamit boo ci eggee danga ko war a bàyyi mu libre bu trafic bi xatee cavalcavia mooy incrocio boo xam ni dafa dox ci diggante yoon wu jaar ci suuf ak pont bu ne ci kawam moo xam ci kaw pont bi nga nekk wala nga ne ci suuf amoo obligation lasciare il cavalcavia bi libre parce que bu fekkante ni nga ko war a bàyyi ci mu libre doo mën a jaar ci yàqu dara taxaw ci digg bi taxaw mu nga yàqal benn véhicule ndax du incrocio boo xam ni arazo la waaw Cavalcavia ñu jël exemple comme bii nii xam nga oto bi jaar oto bi ne ci suuf bu taxawee ci digg bi du yàqal ko ci kaw ki ci kaw it bu taxawee ci kaw du yàqal ko ci suuf kon falso la beneen bi bisogna lasciare liberi i sottovia in caso di traffico intenso sottovia eh, mooy yoon wu jaar ci suuf comme bii nii moom it lasciare ko libero yàqalul ki ci kaw dara kon falso la moom bu fekkee salaire bi dafa xat trafic bi dafa xat nga ñëw ba ci fii am oto yu ne sa kanam faaw da ngay taxaw parce que mënoo avance kon fii tamit falso lay doon moom waaw sottovia bi falso beneen bi mu ne la bisogna lasciare liberi i passaggi a livello e i binari del tram anche in caso di traffico intenso mu ne passage à niveau ak binario tram bi da ko war a bàyyi mu libre même bu fekkee trafic bi dafa xat vero parce que passaggio a livello mooy yoonu train euh, train fi bi jaar su ngay jéggi raay bi yow strada bi lu mu xat-xat-xat yow waroo waru tax nga dem taxaw ci digg raay da nga war a bàyyi bàyyi mu libre li nga mën a def mooy jéggi bi dem mais taxaw ci digg raay bi moom dara waruloo ko taxaw def ndax bu train bi fekki conséquences yi ku ne xam na ko euh, tamit euh, tram bi tamit fi muy jaar kenn waru taxaw ci digg bi da nga koy jéggi mais war a taxaw ci foofu ndax fi bi ñëwee tamit mooy mën naa indi ay conséquence conséquences yu mag beneen bi dafa wax ne bisogna lasciare liberi gli ingressi delle abitazioni private maanaam ab ingressi mooy buntu abitazioni private mooy kër in caso di traffico di formazione di code di veicoli formazione di code di veicoli mooy traffico intenso rek bu fekkee trafic dafa xat oto yi def ab fiil nga dugg ci biir centro abitato par exemple dëkk boo xam ne ay kër da nga fa nekk léegi mu ne la yow bul taxaw di buntu kër kon doo dugg ci dëkk parce que dëkk bi ay buntu kër rek fa ne faaw nga waaw loolu kon falso la moom tamit beneen bi mu ne la bi suñu lasciare li gli attraversamenti pedonali attraversamenti pedonali yi tamit dañ war a bàyyi mu libre e quelli ciclabili ak attraversamenti ciclabili yi tamit in caso di formazione di code di veicoli yi tamit maanaam bu fekkee dafa xat euh, exemple mais am damay indi attraversamenti pedonali comme bii nii nit ki fii la war a jaar pour jéggi tali bi léegi trafic bi bu xatee am oto yu ne sa kanam ak sa ginnaaw yow munoo avancer mais nag boo ñëw ba tolloog attraversamento bi war a ñëw taxaw ci digg ndax boo taxawee fii pédone bi war a jéggi tali bi am fu mu jaar kon fii waroo fee taxaw parce que saa soo taxawee baaree dara rek waroo taxaw waaw mook tamit moo nekk nii mais ci clap tamit même chose waroo di baare yoonu bicyclette yi bi beneen bi dafa wax ni bisogna lasciare liberi solo gli incroci regolati da semaforo mu ne da war a bàyyi mu libre rek incrocio yi nga xam ne dafa am semaforo in caso di formazione di code di veicolo fekkee strada dafa xat et falso incrocio yëpp nga war a bàyyi libre bu fekkente ni formation euh, tali bi dafa xam moo xam am na sémaphore waa wala amul sémaphore bu mu mën a doon boo ñëwee ba ci digg bi waroo fa taxaw da nga ko war a jéggi wala nga xaar ba mu libre nga soog a jéggi mais mënoo taxaw ci digg bi bare yooyu waaw mbokk yi jërëjëf lii la rek incha allah képp ku ñuy bëgg contacter nag ci whatsapp bi man nga envoyé message euh, message euh, vocal rek ci whatsapp bi. 389 05 28 744 ndax appel yi yenn saa yi du ma nekk Italie ku ma woo appel normal doo ma jot eh, appel whatsapp yi tamit su ma nekkee ci soma programme bi di jàngale du ma ko jël du ma ko mën a jël faw message rek laay mën a tontu jërëjëf.